الحمد لله الكريم سلمنا على استفاد بفرد وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي ندرس واتي 1916 ci ndimbalul borom bi subhanahu wa taala toll woon ci waxtaane mbir weer wu tedd wii waaye nag eh, weer wu mën a ñëw rek dana war a yokk sunu dimbalante war a yokk sunu ngëm yàlla moytu yi yàq ngëm yàlla ndax nim njàpp di toje noonee la ngëm yàlla y toje noonee laa ilaaha illallaah di toje te nit ki xamu ci dara di dem ak ñëw waaw wala mu xam ko ba noppi waaye gëmu ko moom gëm la ni daal ah, moom ngëm ngëm yàllaam baax na ak lum mu mën a mel ak lu mu mën di def waaw eh, kon weer wu ñëw loola dañ ko war di dañ ko di feddile rawatina weer yu tedd yi nekk nag muy ñetti weer yu tegaloo yu am solo yi nga xam ni am na ñuy góor góorgóorlu di ko woor am nañ ci mbokk moo xam ni Eh, jamono yëpp mu ngi ci kasu gi waaye ba léegi day continuer di woor weeru rajab bi ak saabaan ak ramadaan yàlla yàlla génne ko mu bañ faa woore koor gi ñëw ci barki ramadaan barki saabaan barki rajab waaw eh, mu mel ni ni eh, surtout surtout surtout dimbalante surtout dimbalante mbokk yi gën di wàññi ko dimbali nit ngir yàlla kese nit man mënal na ko mbokkam mbokk mi loolu lool mu jékku ko lool waaye mu gànt ko seetul seet sax def ko waaye mbokk ma ñëw sàkku ko ci moom wala ñu sàkkul ko ko mu gànt ko aka bari léegi te dina dina defal ab jàmbur loo xam ni jàmbur bu sax laaju ko kon jamono dafa soppeeku leen Euh, rajab li muy baax baax bu ñëwee boo dangay góor góorlu ba nga gën a bennoo ak ñi yàlla booleel rawatina jullit yi mu gën a bennoo waaye gis nga euh, politique politicien bu bon bii ni mu ñuy politicien bu bon bii ni mu ñuy xajale ni mu ñuy xàjjale bu ma nee bu bon bi mooy niñ koy defee te baaxul loolu laa ci jublu politique mënut a ñàkk politique mooy doxalin lu waaye di defee am na am na benn siyaasa am na politique bu la ca biir. waaye bu bon bii gën a fës ci sunu réew mi di nu tàqale ay mag toog wax ba seen dënd jóg saagante ci tele yi internet bi nag moom bu laal bu laal dëgg yàlla ah da war a góor góorgóorlu yow ah, li weer yi seen mbaax gi nga profité tuuti yow nga génn ci yooyu mbokk tasbihaat yooyu ñu leen waxan bu leen ko fàtte ci niveau bi ñu leen wax démb fukki fan yu jëkk yi tasbihaam nga sàmm ko bu bu nga def ci téeméer fukki fan yi ci digg bi noonu fukki fan yu mujj yi noonu waaw ñetti junni it am na kilifa ko ko joxe woon fan yële mooy junnib astaghfirullah junnib laa ilaha illa allah junnib allahumma salli sayyidina muhammad nga yéenewal sa njaboot gépp mu ni mucc rek mbokk mi ni démb dañ ko yónnee benn audio mbokk mi ni eh, àllarbay démb ji ku ci sangu rek am na feebar boo xam ne dina ñëw te bu ñëwee rek eh, doo ci mucc te moom fekk na ko sangu daal di may digtal audio bi ma ne ko waaw kii day li muy wax day mel ni laa gént ñu ni ko àllarba ji bu ci kenn sangu ndax am na feebar boo xam ne day duggaate man ni ko nag baaw boo yeewu woon fekk danga war a sangu farata sangu janaaba nag mooy def kon ba tax na am na benn téere bu ñuy wax xaala cheikh léeg-léeg da wax ni la bis sàngam bu ñëwee nga bëgg a sangu te ñu ni daa fàtt na nga tere aaya sàngam man ko yow nag ginnaaw aaya yooyu yow jàngal falax naa si rek ndax lan xam nga daam ñoo xam ni ñoom euh, nun duñ wedd di géntu géntu jàmbur waaye dëggal géntu jàmbur nga du tax na ñu nit ki yow boobaa bul sangu farata kon bis booba du julli léemul te dem sangu ji rek léemul te dem sangu ji wax yàlla waaw sarax yuñ digle ci gént ak yëpp bu waaye mën a def bu ci ak njibar amul rek boo ko mënee def def ko la suñ cheikh daa wax rek cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu euh, boo doon ndox ci mbedd mi nga ëgg si xale yi di fa wax ni rëdd wi ku ko jéggi dem sawara nii leen ah, waxu leen dëgg de waaye nee na bul jéggi nee jaaral ci ginnaaw rëdd rek dem waaw jaaral ci ginnaaw rek dem wiir yi du la teree dem kon yeneen yi wax nag ci weer wi ñu ñu di la ko laajaat yu ci bari ay ngëneel la yoo xam ne mi ngi ci biir téere yi olama euh, yi bind ko ñi koy wet di ci wet gi loolu moom mooy àdduna rawatina nag groupe boo dem bu dee ci biir lislaam bu dee ci biir politique bi du ñu jaar ci wenn yoon ñaare ñu jaar ci wenn yoon ñaare waaw masaayib yi ak ñi nekk ci tarixa yi ak ñi nekk ci tarixa yi du ñoom duñu jaar ci wenn yoon yooyu nag yow bu mu la gêné waaw bu yow ca bokk saa yu kàddu gi jógee dana na wax ngir yàlla ak seet dëgg rek te bañ a ngir werante kese ngir yay nit ki ginnaaw moom kii daal bokk na ci ab tarixa lu mu wax rek bi daal la lu mu wax laa ci xamutul yow nga ni ginnaaw kii bokku ci tarixa rek daa bañ waa tarixa rek lu mu fi indi rek naa ko bonal loolu moom mooy lu bon loolu la ñuy yedde politiciens yi nun loolu la ñuy yedde politiciens yi mooy ki ci opposition yi ak ki ci pouvoir bi <coughs> bu ñu bu ñu dee wax euh, kenn du baax la dara ci sa kanam moroom waaw ah? kenn du tekki dara ci sa kanam moroom population bi moom ne ci diggante bi ci diggante dékk bi ak martu bi rek loolu dafa war a doy dafa war a jeex te nit Sénégalais yi ñoo ko war a jeexal ñoo ndaw ñiy jóg ñoom ñëpp nañu ànd ak xel xool li leen doole li leen seen sart réew may léegi euh, ñu di ko def te ñu gëm yàlla bu baax a baax a baax xam ni kenn yorul seen euh, seen euh, seen mbir waaye waxal yoo xam ni du dëgg ngir ki nga jàpp ni yow moo yor say mbir ah yow kooku ngay waxal ndax moo yor say mbir jàpp nga ni lii nga am ak li ngay am moo tax nga am ko ba tax nga di ko fenal yooyu lu ko jar jaay sa ngor lañuy wax waaye jaay sa ngëm yàlla la jaay jaay sa ngëm yàlla loolu suñ seex am naan ma seex suñ ngor kenn du ko jaay ku ni jaay na ko amu ko woon rek ndax ku ko am euh, euh, saxal du na ci jaay ko as gor dëgg waaw situation mënu koo soppi kon bu ko defee mbokk mi ni dëgg-dëgg julli waxtaan nañ ci démb waaye bu sañoon ñu ñu ñu ñu ñu gën cee waxtaanaat ginnaaw ci weer wii ci lañu ko baaxe woon xeet wi waaw te nag lañ koo beral nag xeet wi forme julli bi ñu am nun rek noo ko am maanaam xeet wi li ko yàlla beral dafa bari yëmul ci teraanga jim ko defal ni ko euh, kuntum xaru ummatin linaas de waaye da ko confirmer won wone ko ba ñépp gis ko bu yëkkatu ko teg ko ci kaw léegi nag ci biir teral googu ponk bii di sart bii di euh, julli euh, moom bi nga xam ni buñ ko doon misaal ci li ki ko jàngale wax dafa wax ni rasul amri al islaam nena na mbir mi mbir mi mbir mi bopp bi bi lislaam la ah waaw waaw waaye nee na bopp boobu ah, nee na lislaam jooju wa umuduhu assalaatu nee na wi ko téye mooy poto poto bi téye ah, ah, lislaam jooju nee na assalaatu ah waaw waaye wa sarwatu zanamihi aljihaadu waaye nag eh, mbaar moomu la kaw puj ba ca kaw gën caa kawe nee na mooy jihaat yàlla xam na ni jamono jii bu yàlla dogalaatan jihaat ci nga gis soomaan yu baree bare bare bare lu ne mën nañ koo ñàkk mën a bàyyi ñu saaga suñu waajur lu ne waxaat génn ca waaye jihaat yi jihaat mu leer la ni yow mën nga caa faatu ak nun ñii ñu nu bëgge suñu suñu suñu suñu dund gii ragal dee ak ngëm yàlla yu feebal yii parce que nee na kon zarwa ba mooy jihaad Tirmisi moo génn hadiis boobu beneen bi daa wax ni lislaam lañu ko tabax ci juróomi yëf ban ak ban seede ni yàlla yàlla kese kese Muhammad mooy ab yonent kese kese ñaareelu ba eh, di taxawe julli juróom ji asaka bu sart yee jotee daje ci yow génne ko sa dund na nga fexe ba dem ci makka waaye weeru koor bu ñëwee woor ko léegi nag yonent bi mi nii xibaar ci hadis bu njëkk bi nii nii lépp lu taxaw muy aw fas la walla nit walla xar walla bëy xam ngeen ni buñ laggee bopp ba mu faatu kon lum ni lii jëmb ji kat lii mooy bopp bi ah loolu am na solo kon yàlla bi mu sàkkee nit bàyyi indi ko ci kaw suuf diine jim jox nit ku yebu bokk ca ndax mooy mbir mi raasul amri al islaam mbir bi mbir mi nee na al islaam la waaye al islaam moomu kon képp ku ne ci kaw suuf war nga ko yitte woo ndax sa ëllëg muy sa àllaaxira ak sa tey jii di àdduna waaw kon li nit nga gën a war a sonne eh, na na ci julli ginnaaw saada yi moom ay baat la yooyu wax di ko fas ci soxol waaye action yi ngay jóg di ko def mooy julli kon moo jiitu ci jëf yi kon da ko war a yittewoo bu baax mbokk yi te gis nañ leen ah, ñu bari dañ koo négliger nit ku ne ci ab jitaay daa julli sa kër fa nga dëkk waaye réunion bi wala boog ñi nga nekkal wala xew wi wala ah, wala jàng yi wala yu mel noonu tax na julli jot na waaye nga ni cell nga ni cell mel di ni di da nëbb li nga doon loolu ëpp naa def ëpp naa def kon euh, julli day feeñal euh, kawe gu suñu boroom kaweel xeet wii kawe gu suñu boroom kaweel diine ji ci kaw diine yépp ndax nee na lislaam ab néeg la boo xam ne dafa am juróomi poto nee poto yooyu nee na mooy dëgëral per yi per yi ko wër muy miir yi waaye poto yooyu nee na moom mooy téye euh, mooy téye bi téeg mooy mooy buñ koy kuule terrasse bi foog poto yi am nee na mu sogo mën a kuulewu poto yi bu daanoo bâtiment ba daanu na ba daanu na gis nga kon léegi nag poto yooyu dafa am bu ci ëpp doole muy julli kon amul sikk sàkka ni min asami haadihi l arkaan ginnaaw shahaadatayni ndax lan li anna ibadatun min afdalil ibadati ndax julli mooy jaamu yàlla gi gën ci jaamu yàlla yi rawatina na def ko ca waxtu ni ko sang ba xewoon da lay jigaloo suñu boroom da lay moom day dëgëral sa nangu ni ab jaam nga waaye day gën a dëgëral nga nangu ni yow am nga boroom day yeesalaat sa ngëm yàlla di ko feddali ba sab xol day mucc ci eh, tawat waxuma laa dee te nit dina dox nit jullit la ndekk xol bi dee na gis nga ko saa yu nit ku doon ab jullikat bu déggee xaya ala al falaax xaya ala salaah ah day daal waaj daal di jublu nag ci woote wu bii nga xam ni sunu borom subhaanahu wa taala ngi koy <clears throat> fàttali jaam bi waaw nga daal di waajal di rek am nga audience bu rëy rëy rëy mbokk yi lu yomb ngi noonu lu yomb moom julli waaye ci waxee lu jafe moom julli ci boo koy def teewlu ga nga war a def ak yëpp yëpp mbokk yi waaw julli ak leer la da koo dégg ci waxtaan waaw julli ak leer la yaa axil muslim nuurun yatalala'u fi xalbil mu'min leer la sax yëmu ci waaye day fengaat ci xolub kan al mu'min mu'min mooy ki gëm yàlla xam li muy def xam li mu ngi diyaale ak boroomam bi mu kàbbaree dafa yëkkati ay loxoom wane ni dafa mel ni dañ laa joxoñ ak fital bëgg laa fitnal nga ngay nga nga nga nga ni yoroo dara yëkkati say loxo bàyyi nga lépp ki nga jàkkaar loolu léegi yow moom moo la naa defal toogal jógal nga def gis nga ko sunu borom nag euh, subhanahu wa <clears throat> xajul fenn fudul ci xolub jaam jaam bi gëm jaam bi gëm rek moo tax euh, alayhi salaam Euh, daa wax ni euh, daa wax ni euh, alfuhuru satrul iman walhamdulillahi tamla ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla ani aw tamla u ma bayna samawati wal ardi waaye wasalaatu nuurun alayhi salaam moo wax loolu kon buñ ne jullig leer la addis baa ngi lu ma wax fi dafa wax ni laab day benn xaaj la mooy xaaj la ci ngëm yàlla waaye alhamdulilahi neen day feesal day diisal euh, balance bi peese jëf yi wa subhaanallahi mu ñoom it noonu lañ mel euh, day feesal li dox diggante mën naa feesal li dox diggante asamaan ak suuf waaye ne waaye nag as wasalaatu julli moom nuurun ak leer la moom leneen la moom hadis la boo xam ne muslim moo moo ko solo kon foofu lañ ko sukkandikoo am na waxtu bi dafa jot dañ ñëwaat incha allahu gën cee xuus wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu alhamdulillahi alkarim silmilan ala stigadi bi furudin wa sunan سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني